xanaa mu metti lool metti lool lool lool fa metti yem ñu ñàkk ñu baax jibi jool mi dem ak jabaram ak kumba jool ak seen ñaari doom ñuy dëkkandoo yu baax si ñun xale yu yaru xale yu yaru foo natt yaru rekk weesu na fa xale bu am yërmande ci yaayam ak kilifaam ak ay rakkam waaw metti na torop nag metti na fa metti yem waaw mënoon na ni États-Unis laa ne mais bu ñëwee moo day mel ni sénégalais la daal changé wul benn yoon wàcce boppam oyofal boppam waaw waaye nag lii ko dal yàlla yaayam fa ko doom yi féete woon yàlla na ko yàlla féete fu kawe foofu ndaxte yàlla bu soxlaa rek yow yaay ñàkk lii xam nga ni sunu borom rek moo ko mën a teg doomu aadama mais du nit lii tey ku ko doon teg nit xam nga ni ka jaajool lii du ko dal mukk ci àddina ndaxte ñun ñëpp lii ñun ñëpp la metti ñun dëkkandoo yi parce que dañoo dem ba nekkatuñu sax ay dëkkandoo waaw parce que jibi miy dem tey ba bëccëg fii la nekkoon ci sama kër gi ñoo samay doomay ànd man mii di wax ak yéen lu ma metti la papaam di sama càmmiñ lépp lu kii ci xale yi rek ci mën lay ñëw ñooy waxtaan macha allah dama mel ni daal ku bokk ci famille bi daf ma boole ci famille bi ak yaayam tout ma koy ñaanal nag fa mu jëm fa ñu jëm yal na leen gënal fi jóge yal na leen mottalee seen daw ci àjjana fi daw si leen malaaka yër mën a teeru metti metti ya mënu maa ngi soog ndax dafa metti metti na ko wax leen malaaka yër mën daal dund na affaire bi mettit koo xamante ne xam naa fu mu commencé waaye xaw ma fu mu yem ndax ñi ay xale yu baax lañ ñu yaru ñu bëgg nit surtout jabar ji jibi jool jabaram bi ku yër ku yërëm nit ku respecté mag kumba jool waxi no ay xale yu yaru lañ yu baax ci koñ bi amuñoo kenn problème yar daal lañu fi wane ba nit ñi demee yar lañ fa wane di leen ñaanal rek sama xol ci boppam moo fees démb ba tey ba démb ci guddi mënumaa nelaw dafay mel nii ku jigéen kajaa kii kajaa jool dafa mel ni dañ maa tegal kanamam ma di ko dund dund boo xamante ne su ma nee méttiwu rekk rek waxuma li am ma di leen ñaanal nag fi ñu fi ñu fi ñu jógee fi ñu jóge nii dem yàlla na leen gënal fi ñu dem nii yàlla na leen gënal fi ñu jógee yàlla leen yàlla teeru leen yàlla dugal leen ajjana yi boo xamante ne mooy ajjana yi firdaws moo gën ci ajjana yi daal di leen ñaanal daal ñi fi des yàlla leen yàlla may gudd fan ak wér yàlla may xolum seen waajur yi fi des yal na leen yàlla xol may leen xolum muñ boo xamante ne dinañ ko mën a tenir daal loolu laa leen di loolu laa xam ci ñoom papaam sama doomi ndey la yaayam sama doomi ndey la bokk benn dëkk ca Fuuta mu bëgg ma rek na xam nga ay nit dañu bokk fekk yàlla boolewu leen wan man dañ maa bëgg rek te yàlla tax seen xol yi ñu yoroon ci lu baax ak li baax li ñuy def yàlla na leen ko fa yàlla fay ci daraja yonent